wax ne li ñu dajale moo doon kee bi ñu def ko fii te def ko ci ay bër yu bëri ci nguuru Macky président Macky Sall moom la doon jébbal maire bi ak commune municipalité Bargny parce que noonu la ñu doxale concession la buñ koy jox parce que dañoo jàpp ni d' abord moom xam na ni démembrement état yi kon ñu di nel suñu biir la moom it moo gën a jege loolu mooy décentralisation acteurs yi mën a di dund ak mën a def li ñu naan sur ci gannaaw entre moom ak yi mu mën ko surveiller kon nag moom la ñu dégg ouvrage bi infrastructure bi ñuy ñaar acteurs yi lii mën na jëmale seen kanam seen liggéey parce que li ma njëkk visité am na ci ay laboratoire am na lu ne maanaam bépp xeetu jëm mi génn ëllëg mën na ko yóbbu bépp ci àdduna bu dee dañ ko agréé dañ ko certifié moo waral ay laboratoire war fee ne nit ñi di saytu liggéey bi ndax lépp jaar na yoon loolu nag laaj toppatoo day laaj cet day laaj vraiment respecter organisation yi par exemple jël bu jaaree fii di dugg dootul dellu ginnaaw parce que dafa am fu muy jaar ba keroog muy dugg ci camion arrière bi di dem amul dellu ginnaaw kon nag mbokk yi loolu moo doon pàcc bi ak en tout cas benn pàcc bi ci lu suñu teewaay fii tey ci suba ñaareelu pàcc bi mooy président la république daa passé daa décidé jàppale acteur pêche ci niveau vingt mille moteurs yoo xam ne ku ci ne day jàppale nappkat bi ci un million de subvention dégg naa sànq nag yow waxi dañoo bëgg jëndal seen bopp may fàttali ni état bi di jënd pour yéen état ministère du jënd pour nappkat bi nappkat bi mooy jëndal boppam ñun dañuy subventionné waxuñu benn nappkat demal ci jaaykat bi wala ci jaaykat bële li ñu mën a def mooy at bu yàlla sàkk ñu laaj ñiy jaay moteur kan moo bëgg dugg ci programme bi maanaam da ngay nangu bu nappkat bi ñëwee mu fay la différence bi entre li moteur bay jàpp ak subvention ba ñuy joxe comme ça après yow nga jël kayit yooyu jébal ko ministère pour mu fay la ñu million li ci ëpp yi naan man moteur sàngam laa bëgg moteur yi nag dafa am suivant marque bi am na xam concessionnaire yi ci Sénégal ñoom ñoo koy jaay ko jënd Sénégal loolu ci ministère ci service état parce que souvent dama koy dégg ñun waxuñu kenn demal jënd tel moteur déedéet yaay tànn sa moteur moo tax ren eh, eh, ren bi service yi dañ ko def ci journaux yi ne képp kuy jaay moteur te bëgg dugg ci système bi da ñëw ministère bi agréé la na nangoo condition yi pour nga mën a jaay seen moteur kon loolu it mbokk yi baax na loolu wax ko tey nag damaa ñëw pour lancer 2020 bi xam nga lépp mu jeex parce que seen seen mbokk nag moom daa ne asalaamaaleykum mbas mi mbas mi wuyu mu xaw a gàllankoor tuuti liggéey parce que depuis mois fin février mars la bi mbas bi ñëw sonnal ñu lool moo tax ñuy bu ñaan yàlla bu yàlla jëlee ndax ñu delluwaat ak kàttan yëpp ci liggéey bi parce que am na solo moo tax ren mille moteurs fas yéene nañ ko jox acteurs yi mais ñun nag bu ñu def politique national la ñu def maanaam dañuy bëri bu ne ca phase yi passé bu déséquilibre amee ñu jëm ko corriger dañuy fexe ñëpp gis ci seen bopp incha allah danañ xeex pour at bi a taxaw ñu yokk justement nombre pour mën a gaaw dem ci vingt mille nga xam ne mooy yéen président mooy jébbal secteur bi au minimum vingt mille moteurs yu am solo.